man yahdihi laa falaa mudilla la wa man yudlil falaa hadiya la wa ashhadu an laa ilaha illa la wa ashhadu ala man qaala bu'ithtu li utammima makarim al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tey nag dikkaat nañu fii ak yéen comme ni ñu koy faral di defee chaque jour macha allahu rabbi bu ko defee tey ñoo ngi dugg ci wàllu njàpp moom la ñuy jàngale tey parce que ñoo ngi ko doon jël étape par étape tey ñoo ngi dugg ci njàpp ñoo ngi ci lax Laxdariyu page huit page neuf faslun ki a ji ji ay wax la mu ne faraidul wudu fara tey njàpp sabun juróom-ñaar la a niyatu mooy yéene mooy bu njëkk ba xaslul wajhi mooy raxas sa xar kanam xaslul yadayni mooy raxas sa loxo ba ci sa conc ilal mirfaqayni bi ci des wooy wa maxsu raasi mooy masaa sa bopp dem bi doo ngay farata wa xasulu rijlayni ak raxas sa tànk ba ci sa dojoor wa dalku mooy ragg bi ngay ragg sa yaram wal fawru ak gaaw toftale am ñu wax gaaw waaye du gaaw gaaw toftale la mooy farta yi kon ndekke farta njàpp macha allah tabarakallah mooy yéene bi ngay yéene raxas sa xar kanam mooy jëba fa ngay tàmbale fi saxu karaw bu ci sikkim ba nopp yi doo ko laal muy nii tabaarakallah raxas sa xar kanam ak raxas sa loxo ba ci sa conc ak masaa bi ngay masaa sa bopp dem bi ngay dem macha allah tabaarakallah ak raxas sa tànk ba ci sa bëti tànk ak ragg bi ngay ragg sa yaram ak gaaw toftale bu ko defee tabaarakallah tey dañ leen di jàngal tey fàttali fàttalante tey nu ñuy jàppee macha allah tabaarakallah wa sunu sununuhu mu ni sununi xasulul yadayni mooy raxas sa loxo ilal koayni ba ci fi ngay takk lam mooy sunna ya inda shoro mooy fas tàmbali ga wal mad-madatu ak gàllax ndiku wal istinsaaxu ak fiiru sarax ndiku wal ak fiiru wa raddu ma si raasi ak delloo ba ngay delloo sa bopp wa masxul uznayni ak mas ak masxul ba ngay masa sa nopp wa tajdiidul maa lahuma tabaarakallah ak laalaat ndox raxas sa nopp yi wa tartibu bayna faraid yi ak toftale macha allah tabaarakallah toftale faratay kon Omar tey macha allah danga may téyel téere bi bu ko defee ñu tabaarakallah wax naka la ñuy jàppee douze mën na jàpp douze mën na jàpp ak condition nga jàpp ba pare te doo laal sobe doo jàppee foom sobe macha allah léegi bokk nañu bu fekkente ne li ngay jàppee li ngay jàppee moo xam satala la moo xam potu ndaa la sopp nañu boo jàng fiqul arba nee na nga ndeyjooral ko teg ko ci ndey joor ndax sallallahu alayhi wa moo jàngale sallallahu alayhi wa moo jàngale bépp mbir na nga ko tàmbali seen day joor alayhi salaatu wasalaam bépp mbir na nga ko tàmbali seen day joor yéene nag jarul di wax fas fas yéene njàpp déedéet jamono boo jógee di dem rek am nga jàpp bismillahi rahmaani rahim iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila al kaabayn bismillah léegi nag ñu tàmbale jàpp benn par benn léegi nag jamono boo téye ndox mi nii macha allah tabaarkalla boo koy teg nga teg ko nii sa ndeyjoor sopp nañu ko waaye nag léegi nag booy jàpp nag léegi nga indi ko sa loxo càmmoñ léegi na ma la ko waxoon ca ndox ma ndox ma doit être incolore inodore et sans saveur waxoon nañ la ko lam yataghayyar lawnuhu aw taamuhu aw raxiyatuhu léegi nag bu ko defee nga commencé raxas sa loxo ba mu set raxas ba mu set gannaaw ba nga ne bismillahi raxas sa loxo ba mu set ñetti yoon bismillahi jamono boo jógee pour dem rek yéen dugg na léegi raxas nga sa loxo ñetti yoon ñetti yoon bul fàttane loxo boo ci fi ngay takk der wax naa la ci cëru sunna yi la léegi nag nga ndiku benn yoon ñaari yoon ñetti yoon léegi sarax ndiku moytul nag mu yéeg sarax ndiku delloo delloo wàcc delloo dugal ndox mi delloo génne ñetti yoon sarax ndi ko ñetti yoon léegi nag nooy def sëlmu sëlmu yaa ngi commencé booy sëlmu farata gi nag mooy ñaareelu farata bi foofu ngay dugalee yéene jàpp bu jamono bi ngay sëlmu yaa ngi tàmbali sa karaw fi mu saxee fi muy sax ba fi sikkim bi yem fii waaw fi sikkim bi yem raxas yëpp mosul mosul nag bàyyi benn parti am na fii benn benn yax bu nekk fii làmb ko yax bu nekk fii sa nopp moom la ñuy wax los temporal dafa am longueur dafa am largeur ak longeur longeur mooy fi sa karaw commencé sax ba fi sa sikkim bi yem waaw min bi dayati jabati ila lixyati fii ci biir bokk ci far tey menton bi menton bi bokku ci bokku ci bu ko defee nag léegi nga commencé benn yoon ñaari yoon ba mu set ñetti yoon ñetti yoon bismillah léegi nag nga ëñ sa loxo léegi nag fii moom fii moom fii moom jamono booy raxas sa loxo yaa ngi commencé sa loxo yi ngay commencé loxo yi yéeg yéeg wa xaslul yadayni ilal mirfaqayn ba ci conc bi bul fàtte boo jàppee benn benn baax na jàpp ñaar ñaar baax na jàpp ñett ñett baax na waaye boo jàppee benn benn na nga xerañe xerañe xerañe xerañe xerañ ba sa cëru farta yëpp tooy yéeg ba ci kaw booy raxas sa loxo commencé fii yéeg yéeg rasul yadayni ilal mirfaqayni toujours nag min taqdiri zahiri alal batini ñaari yoon yéegal ñetti yoon nga jël sa loxo càmmoñ tàmbali moom it commencé loxo bi ngay tàmbale yéek yéek ba sa conco yéek ba sa conco ñaari yoon yéek yaa ngi tàmbali ci loxo bi yéek ba sa conco bu defee nag léegi soo paree yaa ngi ci yaa ngi jëm ci beneen farata léegi nag la jël nga ndox dem bi kese sa bopp mooy farata dikk bi sunna la dem bi rek mooy farata dikk bi sunna la beneen ngay masaa sa bopp masaa dem bi mooy farata dikk bi sunna la booy raxas sa bopp benn yoon léegi nag dañu sopp nga jëlaat ndox am na ñoo xam ne dañuy raxas seen bopp rek enchaîné seen nopp dañoo sopp nga jëlaat ndox jëlaat ndox raxas noppi dafa nopp am na ay tali boo ko defee am na ay tali boo defee ni am na ay tali sa baaram laal ko léegi bagaan ba ca biir ci biti ca biir ak ca biti nopp da am ay tali ca biir ak ca biti sa baaraam bii mooy raxas ci biir sa baaram bii bii mooy raxas ci biti waaw nga def ko waaw tabaarakallah bu ko defee nag léegi dernière étape bi mooy sa tànk sa tànku ndeyjoor yaa ngi commencé ca baaraamu sànqalañ ba sa tànku ndeyjoor ca baaraamu sànqalañ ba ngay commencé raxas raxas diggante bi raxas bi ci tegu raxas diggante bi raxas bi ci tegu raxas diggante bi raxas bi ci tegu raxas diggante bi jëm bëcc bu mag bi yaa ngi yéeg nag bul bàyyi benn cër yaa ngi yéeg yéeg yéeg yéeg ba ci dojoor bi fan mooy dojoor mooy cheville sa tànku ndeyjoor yaa ngi commencé ca baaraamu sànqalañ bu ndaw ba sa tànku càmmooñ yaa ngi commencé ca baaraam bu mag bi ndax boo seetee sa tànku ndeyjoor baaraamu sànqalañ bi mooy ndeyjooru tànku ndeyjoor bi tànku càmmooñ baaraam bu mag bi mooy ndeyjooru tànku càmmooñ bi nga commencé bu mag bi raxas ci diggante bi jël bi ci tegu raxas diggante bi jël bi ci tegu raxas diggante bi jël bi ci tegu raxas diggante bi yéeg yéeg yéeg yéeg yéeg yéeg yéeg yéeg yéeg yéeg ñëw ba ci cheville bi ba ci soo paree nga jublu penku jublu penku boo jubloo penku nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma aj'alni min at-tawabina wajal nii min al mutatahirina wajal nii min ibadika saalihina soo ko mënee nga teg ci ina anzalnaahu bismillahi rahmani rahim ina anzalnaahu fii laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahri tanazzulu malaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta man laayil fajri sallallahu alayhi wa sallam nee na boo ko defee nii ma la ko waxee bàkkaar boo amoon boo amoon set na wecc comme ni nga juddoo ci sa yaay comme ni nga juddoo ci sa yaay jàpp ngi noonu tabaarakallah jàpp mi ngi noonu wax naa la farata yi mooy yéene raxas sa kanam raxas sa loxo ba ci sa conc masaa sa bopp dem bi kese raxas sa tànk ba ci sa dojoor ba ci sa bëj tànk ragg frotte sa yaram ak gaawa a toftale jóge dem ci cër jóge ci cër dem ci cër tabaarakallah waxtu yu dab nañu ñoo ngi yemale foofu waxtaan insha allah daañu dikk ci sunnay njàpp daañu dikk macha allah tabarakallah ci ngëneelu jàpp waxtu yu dab nañu ñoo ngi yemale foofu waxtaan wi macha allah di ñaan yàlla yàlla yàlla defal dégg ak topp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam